te li muy fees fees beneen question lay laaj moo di noo bokk réew mi noo ngi def loo xam ne kenn terewu ko amul benn interdiction boo xam ne yëgu bokk te yaakaar naa ne pandémie bi am ci Sénégal bi am ci réew mi ci distanciation yi ñu ngi koy respecté wax bi may wax nii moo tax ma tekki samay masque te gisuma ñu tere am ndaje man bi may nekk ci administration la ma xamoon moo di village centre priorité économique yi village centre lañ koy jox ak euh, chefferie religieuse ak village frontalier ci dëkk dañ leen di yi ndax yooyu ñoo gën a sensible ñu leen di aar ci wàll gune dafa yóbbu gën leen a suqali ci wàllu développement ndax village centre am na dëkk ya ko wër yëpp bu ñu ñëwee naa si foofa développement mën naa am bu ko defee chefferie religieuse yi fi nga xam ne sëriñ si dañ faa nekk mbooloo lañ fay daje moo xam ne wax dëgg yàlla day bari bari goo xam ne léeg-léeg day ëpp day jéggi dayoo te mbooloo fu ñu daje dañ leen a war a aar village itam danañ leen defal noo xam ne dañuy gën a naat réew ma nga xam ne moom lañ dendal pour ñu bañ faa indi ay fraude pour ñu bañ faa def leneen walla ñu bañ leen a ñee pour ñu mën a des seen réew xam ne seen réew kat fonk na leen waaw ma gis Euh, bis bu mel ne tey di bisu xaadimu rasul muy bis bi mu dellu si woon ak mbooloo mi fi daje ni mu baree ci àddina ni mu baree gisuma fi benn benn force de sécurité bu leen war a aar jàpp naa ne te nu am droit ci réew mi wax dëgg yàlla wala boog xëy na bu nu ci boolewul itam foofu itam kéemaanu sëñ Tuubaa dafay feeñ ndax lu baax la itam loolu man critiqué wu ma ko remarque bu may def la rek di ko laaj te yaakaar naa ne am naa droit laaj ci lu mel noonu ndax ci réew mi la bokk waaye nag critiqué wu ma ko li tax critiqué wu ma ko sunu sang xaadimul Moustapha jox nañu ay jikko yoo xam ne nàmpatal nañu ci Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jox ñu ay jikko makaarimul axlaaq ba nga xam ne la gën a bon ci doomu aadama mooy ak rëy ak naaféq ak di wax lu dul am loola mu fexe ba dindi ko ci ñun lay rëy woyofal woyof gi nekk ci ñun waaw ñu woyof toy loola mu def jikko yooyu ba nga xam ne ay nit kenn ku ne mu nit boo gis dana yéene morom ja lu ëpp la mu yéene boppam ba tax na loola ji fi jàmm jàmm joojee fekk nu fii nu tey nekk tey ba ay junni junni doomu aadama ñi ngi Tuubaa waaye doo gis xat gu damm kenn du ca laal morom ja donte sécurité boobu kenn abaluñu ko wala kenn jëmewu ko ci ñun waaye sécurité amaani laa moo gën lépp mooy sécurité suñu borom tabaraka wa taala te Serigne Touba fexe na ba nu am sécurité boobu kon daf ñuy jàngal ne nekkete ñun kët ah euh, mën na noo demal suñu bopp ci wàllu gu bu buñ ci royee ci domaine bu ne rek danañ ci mën a demal suñu bopp buñ toppee mbirum agriculture li ñuy wax autarcie danañ ko mën a am di bay loo xam ne danañu doy sëkk ci wàll googu ci joxoñu xaadimu rasul ci joxoñu xaadimu rasul dañu won ne bu nu defee tawakkul weeru ci suñu borom tabaraka wa taala dara duñu jom waaw ndax luy jikko yu rafet def na ko ci ñun wan nañu itam ne cohabitation bi ne képp koo xam ne euh, ku baax la nee na lépp ko ku bëgg a bokk ak man rek baaxa la ndax kenn ku ne la nga baax le laa bokk ak yow